benn tesalonik saar ñeent léegi nag mbokk yi jot ngeen ci nun nan ngeen war a dunde ba neex yàlla te moom ngeen di def waaye ci turu borom bi yéesu nu ngi leen di ñaan ak a dénk ngeen gën koo feddali ndaxte xam ngeen ndigal yi ñu leen jox ci wàllu yéesu borom bi lii nag mooy coobareg yàlla ngeen sell maanaam ngeen moytu njaaloo ngeen noot seeni cër ci cell ak tedd te xemmem bañ leen a jiital ni xeeti àddina yi xamul yàlla ci mbir mii nag bu kenn ci yéen laal yëfi jàmbur ngir bañ koo tooñ ndaxte waxoon nañu leen bu yàgg te artu leen ne ñiy def loolu borom bi dina leen mbugal ndaxte yàlla woo nañu nu dund ci cell waaye du ci sobe ku tanqam lu wax ji nag defoo ko nit yàlla nga ko def moom mi leen di jox xel mu sell mi ci lu jëm ci bëggante ci seen biir matul nu leen di bind dara ndax yàlla def na ci seen xol ngeen bëggante te moom ngeen di def ci mbokk yépp yi ci diiwaanu Masedowan waaye mbokk yi maa ngi leen di xiirtal ngeen gën cee sax fulla woo leen a dund ci jàmm di toppatoo seen mbiri bopp tey lekk seen ñaq ni nu leen ko sante woon noonu dingeen dund dund gu jekk ci kanamu waa àddina te it du ngeen soxlaal kenn dara ci mbirum ñi nelaw nag mbokk yi bëgguñu ngeen réere mbir ba tiis ni aji gëmul yi amul benn yaakaar ndegam gëm nanu ne yéesu dee na te dekki noonu it yàlla dina indaale ak yéesu ñépp ñi ko gëm te nelaw nu ngi leen di wax liy tukkee ci borom bi nun ñiy dund te des fi ba kere borom bi dellusi du nu jiitu ñi nelaw ndaxte ndigal lu jamp dina jib baatu kilifa ci malaaka yi dégtu liitu yàlla jolli te borom bi moom ci boppam dina wàcce ci asamaan booba ñi gëm kirist te dee dinañu jëkk a dekki ginnaaw loolu nun ñiy dund te des fi dinañu ne fëy ak ñoom jëm ci niir yi tase ji ak borom bi ci jaww ji te noonu dinañu nekk ak borom bi ba faw kon nag na ku nekk di defal sa xolu moroom ak kàddu yooyu